waa sëñ Dafe ñaata fan ngeen def ce camp ba globalement ak yéen ba ba mu leen leeree ne dañ leen di delloo Sénégal foofu nan la fa demee quoi lan ngeen xalaat. bon camp yi nekkuñu woon ci benn camp dund nañ fa ci ñetti camp camp bi ñu njëkk a teer quatre jours lañ fa def demaat Tenerife def fa vingt neuf jours jógee Tenerife dem Las Palmas def Las Palmas onze jours ñu jógee Las Palmas nag ci la ñuy door a indi ñu Sénégal. indi bi ba léegi nii ñëwuñu directement ni ñu dañuy dem ni ñu ko doon gisee mooy dañuy nekk ak ay nit si camp bi ñu xëy xëy départ jékki-jékki woote si biir camp bi ni gars yi ñun day mujj nañ ñu dugal ñu ngi biir ville. ñu ne gars yi démb de am na ñu fi jóge egg nañ lan demee ba ñu jékki-jékki ay nit woote waat ñu ni gaalu ñoom diw jël di génn nañ démb ñu woote ni ñu ngi jolof Sénégal du ñu wax sax turu Sénégal dañ naan gars yi ñun de yóbbu nañ ñu jolof tey. ñuy dégg rumeur yi fii gars yi wàcc nañ aéroport tas nañ fii taal nañ seebu nangam ci biir loolu ci la nekk foofu ba benn jour waa ji ñëw ni libération aujourd'hui fekk na man li tax ma ëpp yaakaar mooy demoon naa ba waa Croix-Rouge ñëw jox ma benn batch ni ma yow jot nañ ki la war a héberger parce que boobu da ngay ñëw ñu lay laaj numéro ndax xam nga fi nit nga ni waaw fu mu nekk nga ni dëkk sa sàngam moo lay héberger nga ni waaw nga joxe numéro ñoom dinañ ko jéem a tànte ni ko sa jarbaat mi ngi fi wala sa mag wala sa frère pour mu ñëw jël si la am na ci ñoo xam ne nii nekk amuñu woon loolu man demoon naa ba am loolu ñoom ñu ñëw jox ma benn bàtt ni ma jot nañ ki nga xam ni moo lay héberger ba ci biir camp bi ñu bëri la nga sax ci man ci ni ma parce que yàlla dama defal bi ma fay nekk dama amul tur li ma may tur mooy dama fa nem mu tar ma jékki-jékki def fa benn gest booba biir camp bi am na benn télécentre bu fa nekk boo ñëwee da ngay dugal weccet woote coupé bu amee weccet mu delloo la. ci la gars yi di nëbbutu di yërëmtalu man ma jël xaalis bi ma yoroon euro yi ma yóbbaale woon pour argent de poche dégguma seen làkk dégguma dara bi ma ñëwee ma ñëw liyaar ndaw si ni ko ñun dañuy bëgg a woo suñu mbokk yi mais mënuñoo woote parce que amuñu weccat mu insisté ci loolu ba yàgg mu jël euh, sama xaalis defal ma ko euro ci laa taxaw si biir camp bi ku ñëw bëgg a wecceeku ma jox la trois euro bu di euh, bu sew nga jox ma 5 pièces euro bu dijji ci biir loolu ci laa tàmbale woon di kocc koccal léeg-léeg ma am ay 17 euros bénéfice wala 20 euros su ngoonee ma jëndewaat lépp coob indiwaat ko ci camp bi euh, chambre bi ma nekk neexale ko gars yi nga xamante ni ñoom laa nekk. di ko dund nag lu metti parce que système boobu noonu Gambien yi laa fekk ñu ko defoon comme système ma ñëw ànd kook ñoom ñu ma ciy siis léeg-léeg saagante ndey yi ci biir affaire yooyu ci loolu ci lañ ñu jëlee foofu noonu yóbbu ñu Las Palmas bi ñu demee Las Palmas bi ma dundee loolu mu neex ci laa egg si Las Palmas gis caamaas yi ñu fa joxoon caamaas comme sénégalais yi nga xam ne dañuy dégg langue bi ñu jël leen jox leen responsabilité ñi déggul langue bi lu ñu bëgg a wax nañ ko nañ leen ko wax ñu añ ñëwee wala lekk ñoom ñu di ko séddale ci laa ñëw gis système bi ñu doon def mu xam ne ñoom ñu maruñu dañoo excelence si rek ni cëpp gars yi ñëw ci bis bi ni English ma tàllal sama loxo te booba dégguma ci alfun bu ma déggee anglais dégguma ci lenn lu dul good morning afternoon how are you cool fine ci la ñew talal sama loxo waji yëkëti ben dossier jox ma dal ni leen ki caamaas la ñu def ma caamaas ba pare ma nekk ci kanam ñu war may dégglu té li ñi wax yalla xamna ni xomako mais su la yalla naré dimbali rek ma and ak gaay ci système bi yenn sénégalais yow nekk fa di jël ay bik fam bi nga xamni mo gagné won marché bi nga xamni mo ñuy jox bi gaay di dessiné ay nek ay jeun ay affaire di ko jox mu koy taf ci biir restaurant bi mu leen di neexal ma jékki-jékki rek ñëw xaaju tudde mère bi mama Africa. extrait gi yuuxu ko ni ko mama Africa ci biir loolu xoolal mère bi kontaan mujj mu cité sama tur bi saa su rek si dafe si dafe ci biir camp bi bi ñu nekkee foofu noonu dund fa ba dund fa ay dix jours onzième jour bi dañoo jékki-jékki rek ñëw ay bis yu bëri taxaw ñu ñëw ni aujourd'hui libération ñu laaj libération fan la ñu ni ñu première val Malaga. deuxième Valence troisième Madrid quatrième Barcelone cinquième Murcia gars yi tàmbalee soufflé nek ci biir camp bi di mbalagante ki jëm Malaga souvent ñu naa la yow da ngay bay ki jëm Barcelone ñu naa la nag ma nuyul Eto, nak ma nuyul joueur yi nangam tàmbalee mbalagante ci lolu ndekete val yëpp Sénégal la jëm ci. ñun suñu ñibbisi amuñu ci luddul wacc Sénégal muy Sénégal man nak biñuy ñuy ci val bi ñuy wacc suñu bagage wañi suñu bagage yi jël jaget yi ñu yoron buñ takkee jaar ñu dindiko xaw ñoo palper xool ñu ñu dugg ci avion bi ma gis avion bi ñu nekk ci biir comme ñuy servir bari torop ci laa ne gars yi ñun jolof lañ jëm de ñu naa ma noo yow moom fu ñu la fekk da ngay animé da ngaa neex xel da ngaa mën leen baax na ci biir loolu ci lañ jékki-jékki rek vali jóg mais li gën a yéeme yéeme yéeme yéeme ci yoon bi mooy da nga koy daw sept jours ñibbisi bi nga ñibbisi ci une heure de temps avion bi ci biir la ñu nekk di ndékki ndékki. kenn ku ci nekk fi nga toog centre bi nga wàccee sa table di ndékki avant ndékki li di pare avion bi wàcc na Sénégal ñu ñëw wàcce ñu Dakar Bango bi ñu ñëwee Dakar Bango fekk nañ fa armée bi mu taxaw escorter ñu comme kuy escorter président de la République bi ñu ñëwee ci val bi Ousmane Ngom boo moo njëkk a ñëw yéeg bon daan xale yi bon ñoo ngi leen di masaw coono gars yi jaar ak moom fu doy waar booba ñun gisuñu lenn. mer nañ jooy yi daanu jël yi gars yi escorté ñu wàcce ñu biñ ñu wàccee jël ñu kenn ku ci nekk ñu enquête la foo jóge woon ñaata nga paasoon lu taxoon nga dem ñu wax ñu ko ñu bind ni dinañ leen remboursé seen paas am ngeen fi sax aide yoo xam ni jox nañ leen ko dinañ leen ko séddale pour kenn ku ci nekk am foo jaar ba génn ci situation bi yàlla def na loolu 2006 la boobaak léegi moom gisuñu ci dara man bok gisuma ci dara ci lañ ñew légui garé ay car kenn ku ci nekk ñu laaj la localité bi nga jëm ñi jëm ngaay ñu ni auto yi jëm ngaay ñi jëm dakar car bi dal bu taxawé ndar dakar la bon man xawma dakar bango bi ma wacc sax ma ngi fay doro wacc mais ndar lañ wax pour man ma ngi ndar yalla def na ma ngi tuti wéccet gaay wax man leen man cette place lay dugg ñu ni ma non fi amul lo fi dogal dem kaw di ko suuf ñu ne ma amoo loo fi dogal ma siisu gars yi làpp ma fa làpp yu metti dóor ma fa ba toj sama bopp bi sama grand bi ma la doon wax naa la départ bi jàppale na ma dafa toog fii ba yàgg benn gain moo seetaan tv cinq ñëw ni ko ah, man de sa ki ma gis démb sa rakk bi laa ko teg parce que am na gars yu ñu wàcce ci laa jóge foofu gars yi forcé ma neexal ma noo dafay yéegal yéegal nii affaire yooyu nangam sangam expliqué forcé ma ñu yéeg bi ñu yéegee car bi départ car yi rangaloo départ nañ Dakar Bango ba bi ñuy egg si montage bu ñu fekk ci yoon bi buñ nee cëpp dañ naa gaay waa kër Ablaye Wade da ngi nii dañ leen di dàq cëppeelu mel ni ay mala ñun moom doonatuñ ay doomu aadama dàq leen ñu daw ñu ñëw ba Kébémer def fa escale xaalis bi ma yoroon ma ñëw fa fekk fa benn naar ma jox ko ko di wut weccet naar bi mel ni ku may ñaawal cent vingt euros laa ko jox ñetti billet naar bi jox ma. soixante-dix-huit mille pare def ko ay mille franc mille franc temps bi ma toog gisuma CFA CFA bi ma téye comme million ci man ndax bari gum bari sama xol bi jeex ma ñëw ba ngaay xaalis boobu noonu bi ma yegsee ba ngaay war a jël kalandoo pour ñibbi ndànk suñ dëkk ma ñëwee ba ngaay ma jënd ñaari saaku ceeb luyee kalandoo teg ko ci fay kalandoo bi mille dem suñu kër li yéeme dëgg dëgg moy ñëw naa ba suñu kër tok ci suñu garabu kër wëru sama ya jàkkaarloog man ta xamul ni man ma ñibisi parce que fogul won heure bobu ma ñew fogul won dara. waaw yaakar gu tas gi nga xamne ne fofu moy ñibisi mooy leen del bi leen ñibisi nan ngeen ko dundé yaak sa wa fami non yaakar bu tas bi mom euh, dundu nañ ko dundinu metti parce que euh, bu fekkente ni Sénégal réalité réew mi li ñi ci ëpp japp nañ ni ku ci dem Europe rek tekki nga. sama yaay moom dund ko ci sant yàlla parce que gisaat na doomam parce que jàppoon na ni deena naa comme ni ni ñu dee sama papa nag maa ngi remarqué moom déception la ci am déception parce que dama koy faral sax di ko mbalak ci loolu moom rëddoon na bâtiment ba pare. parce que boobu fekk na maa ngi tàmbalee kucci kucci mais mi ngi xool benn espace ci kër gi euh, di jóg di dox di rëdd naa ma xam nga ni fii lu ne xajoon na fi fii fii fii lu ne xajoon na fi cité gouvernement bi quoi saaga leen sax nag saaga na leen ndax. mer mais bi mu bi muy def loolu maanaam euh, yëg-yëg bi mu ko defee mooy metti parce que jàppoon na ni li ma defoon comprendre nga defoon naa ko dem na ba yàgg mu mujj ñëw fëgg sama bopp bi mel ni ku may sotti ndox naa ma santal yàlla la mag ña defoon def nga ko jixaati nga ba ñëw yéeg nga ci gaal dem ba wàcc santal yàlla te xam ne li dem des moo ëpp ma nekk ci dëkk bi nag muy village boo xam ne nii village bu yàgg la ndànk depuis mille huit cent la mais mennum man maa fa jóge woon yéeg ci gaal dem Espagne mennum man maa jóge ci dëkk bi nekk ci dëkk bi ñu di dund lu métti ni may dunde ci dëkk bi mooy garam place bu ma romb bëgg nañoo xam ma expliquer leen li ma dund wala yoon bi naka la demee genn wàll gi ñemewuñ ko li may wax sax léeg-léeg loolu lu ñuy gëm maanaam dañ may diwaan fu ma fu ma dem rek dañuy ñëw taxaw mujj maara yi nga xam ne ñoo fa nekk parce que dëkku sëriñ la dëkku ñaan la maara yi da ngay gis koo xam ni daf may woo këram di ma laaj naka lañ dundee yoon beeg naka nangam bon ñu may massawu sama samay mbokk ñi ci ëpp di xey di ñew suñu kër kër gi melni ni mo fi am ñew di ma seet ma muju atanatuma pression bobu ci la ñew ñew rek ci wat ci li nga xamanteni ci la nekkon muy géej gi voilà ñu ñew ci loolu sax ndax man euh, buma ma lo li nga wax ci kaw moy yow bi ngay fay fekk na nga yoré won 700000 yu yu yu benn quoi donc mel na ni yow mareyage bi nga doon def fii làgg-làggal bi terew ko woon a dox lool quoi lan moo taxoon nga jàpp ne da ngaa war a dem bàyyi fi liggéey boobu. non bi may dem ci liggéey boobu noonu. Euh, vraiment doon naa fi taqale di am mais booba jàpp naa ni euh, situation bi ma jëm nii moo ma ci war a génn parce que damaa dem ci période boo xam ne dafa metti ci man maa ngi woon ak 700000 mais jamono jooju may yor mille yàlla xam na ni yoroon naa lu ëpp loolu parce que man avant may mbëkk am naa kër. té bi may am kër li fi la nek Joal di liggéey bobu ma ngi yanu pañe donaguma sax marier ci la joggé lolu nak di yëkkati étape par étape ba don marier tàmbulee yabi auto mais me moins yoon loo xam ni xamni mako momal sama bop muy auto. samay morom nek fi yor ay auto, ma gis liggéey bi metti gu metti parce que dimbulanté bi ci marier yi dafa dess fi bo fi yorul xaalis boko da ngay ñëw da ngay daj lu nek so démé nak ba am matériel bu ngay liggéey yor fond mun ngaa liggéeyal sa bopp parce que système bi ngay liggéeyee xam nga ko miin nga ko dama demoon ba liggéey bi yàqu ci sama côté ma sentir xaalis bi ma yoroon di ruus di jeex muy dund lu metti ni xaaral ma jéem a daw pour wuti ci doole. dem bi dara yóbbu ma lu dul jàppoon ni foofu moo tane parce que dem naa ci daj la ma daj ñëwaat mu xewaat ci deux mille vingt bi ci biir deux mille vingt bi sama fukki xel xalaatut a yéegaat sax ci gaal te pourtant jafe-jafe yi ma dund ci deux mille bi moo gën a metti sax. avant bi may dem Espagne mais natt naa ko xam ne lii nekkul lu jaadu demin wi jaaduwul metti na ay bakkan di tëdd ngay jeune boo xamante ni nii souvent boo fàttewul suñu borom xam nga ni li mu bind ci yow ala kulli alin di nga ko am. bu caaxaan jeexee dëgg des nag dinañ fàtt ci benn côté mais ay jullit lañ te ab jullit aussi dafa war di nangu dogal actuellement nii digaluma kenn kenn kenn muy jeune muy grand muy keneen di yéeg si gaal yi di dem. yàlla xam na ni du yoon ñuy lancé appel nag président de la république lépp lu mu man ci ndaw yi dimbali leen nañ ñu dimbali ndawi Sénégal xëy kese kese kese lañu ñu manqué su ma nee xëy mooy liggéey liggéey amuñu ko man mii wax ak yow fi mu nekk nii liggéey bi may liggéey muy liggéeyu jën am naa ci xam-xam boo xamante ni nii tey jii dund ko liggéey ko xam intérêt liggéey bi perte bi bénéfice bi. tey soo ñëwoon léegi fëgg ma ni ma dama laa bëgg taxawal usine ma defal la bilan léegi ni la usine boo ma joxee temps dinaa ko taxawal at mu ne dinaa la liggéeyal nangam lu ma maîtriser la muy xam-xam mais oo ma fond bu ma ko liggéeyee oo ma ku ma ci dimbali mooy waral yu bëri nga ciy dugg mais fi mu ne nii mën naa dugg ci lu nekk ba mu des fi mu ne yéeg ci gaal di dem ci mbëkk mi wala may dugg ci loo xam ne neexul yàlla wala may dugg ci loo xamante ni sama nawle bu ma ci fekk dina ma xeeb. waaw sëñ Sidi euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci tontu yi. am na solo macha allah te jàpp naa ne ku déglu lii di nga bàyyi xel bu baax ci dugg ci gaal yi ndaxte li ci ëpp ay coono laa fi dégg tey nga nga wax ko fi. waaw mais sant yàlla rek bi lii jàllee parce que après lii bon ñëw naa samay mbokk defal ma te saa su nekk ñu ngi may xamal ni ma lépp loo war a am ci àdduna di nga ci jot di ma muñal surtout sama soxna sama yaay maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm sama papa. di gërëm képp koo xamante ni nii rek moom laa bokkal dëkk bi nga xamante ni moom laa dëkk muy kilifa ya fa nekk chaque jour maa ngi gis seen ñaan parce que jeune laa boo xamante ni nii ci dëkk ba laa dëkk mais teg nañ ma foo xamante ni teguma fa fenn ñu ko fa kenn ba tax na damay ñaan yàlla yàlla na ma yàlla dimbali ubbil may xéewal ba kenn ku ci ne xaj ci parce que man li ma gën a mën a ñàkk muñ ci sama àdduna mooy nit ñëw diis ma soxla munuma ko ni may gis nii oo ma dara mais lu ma am yàlla xam na ne ci social laa koy def nit laa ko xamante ni nii lépp lu may am te mënu cee dimbali jaamu yàlla yàlla bu ma ko yàlla jox te li may wax nii lu may tibb ci sama xol la ñi ma nekkal ci dëkk bi muy Joal Fadiouth di suñu dëkk xam nañ ko te boo leen ko laajee xam nañ loolu ci man bu baax a baax damay jéem bay jéem lu ma mënul mooy waral saa ne ma teg sama bët foo xamante ni nii yàlla xam na ni dama naan egguma fa sax mais damay jéem ni rek dama faa war a egg parce que su sañoon fu ñuy tudde nit kuy def lu baax dinañ ma fa tudd ndax damay fàttaliku benn jour sama papa bi may am oto particulier amoon naa ko bi ma koy am damaa ñëw di ko tàggu ni ko dama bëgg jënd oto sam papa ni ma boo jógee fii jëm Dakar ñaata nit ngay dajal ñaata oto ngay dajal ma ne ko bari na mu ni ma ndax gis nga ci oto boo xam ne am xar moo koy dawal wala bëy ma ne déedéet mu ni ma ay doomi aadama dong ñoo koy dawal te doomu aadama nga jàppal ni lu nit di am mun nga koo am loolu noonu laay doxee di ko ci sant di ko ci gërëm di ñaan yàlla senegal yàlla na fi jàmm yàgg képp koo xamante ni nii am nga mbokk mu wàññeeku ci mbëkk mi yàlla na sunu borom def taw feexi nga mën koo muñ te li nga ko ñaanal nekk lu ko dal te ñi nga xamante ni nii ñi ngi fi nekk ay jeunes bu ñu waaj mukk pour jëm ci li nga xamante ni nii mooy gaal yi nañ fi bàyyi gaal yi li laay war a suuli te ñaan yàlla sunu borom ubbi beneen yoon boo xamante ni nii moo gën a yomb gaal yi parce que sunu borom mën na ko am na ko yàlla na ko def ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan bu wér a wér a wér ci émission bi nga xamante ni def ngeen ko ñi ngi jégglu kàddu yi nag lépp lu ñu ci wax loo xamante ni nii nekk na loo xam ni kàddu yu doy waar la ñu xam ni sunu xërte la li ci sunu dënn ëpp na loolu li ñu ci xam te maîtriser ko ci ëpp na loolu fi ñu ci jaar fépp du lépp la ñu wax mais ñi ngi sant yàlla bu baax a baax di remercier site bi bu baax a baax di wax ni yàlla na yàlla def fi site yu mag yi yegg mu yegg fa ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sëñ Sidi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci tontu yi mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal yéen tam seen teewlu te di leen jox dig daje ci beneen émission.